liggéey bii nga xam ne ñoo ngi koy liggéey daaw lañ ko commencé woon ndax dañoo gis Touba weeru safar yu bu dugg see rek première safar suñ mbokki Baay Faal yi dañ leen gis nit ñi seetaleel Touba boobu initiative it ñu xam ne initiative bu rafet la tey lu baax fu mu nekk ay nit a ko fa def wante bu fa saxee way ginnaaw ba rek ñu ko toppatoo ñoom ñoo fa nekk moo tax ku mel ni sëriñ Xaarim Njaay tasawuf ak sëriñ Daam Samb ak imaam Diop mii nii amoon benn xalaat boo xam ne ni ñu seetalee ndak Touba ginnaaw mënuñu faa dem ñu seetale ko ndakaaru daaw lañ ko commencé woon donte nag doole ji bëriwut ndigal lañ ci am ci ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ki nga xam ne moo yor kàddoom di Serigne Bassirou Abdoul Khadir ñu jaare woon ko ci li alquran naan waatul bu yota min abwaabiha kër jaar ci buntu ba ñu jaare woon ne mooy buntum Ndakaaru di Alaaji Mbàkke yu fay mu jox ñu ci ndigal daaw ñu seetal li ko tàmbalee Masaalikul Jinaan ba ci bi moo waral ren bin jàppee ibiteb jumaa ji après lañ ne gis nañ ne Coupe d'Afrique bii nga xam ne passé na gis nañ mbokk yi ak euh, mbokki jullit yi ñëpp rek Sénégal yëpp nin jóge woon doon peinturu mbedd yi nga xam ne mbedd moo ca dugg doo ca gaaw a jugee xam nañ ne lañ ko doon defal doon teb setal la mën naa nekk setal boobu yooyu koon yayoo na ko ndax ñuy setal ngir mu set loolu moom lu baax la wante gan gii nga xam ne mi ngi ñëw ñoom lañ doon séentu bu ñëwoon mën naa bañ mën naa bañ a bare njariñ wante ñun gan gii ñuy sént di sëñ Touba bu ñëwee moom dana ñëw dana bari njariñ te njariñ yi mu indaale du ko def fu tilim fu set wi ci la koy def moo waral ñu tàmbalee asalem ca station Castor ba am na ñu fa tàmbalee di ñëw muy waa daayira Nuuru Daara yi ne asalem ñu ànd ak sëñ Daam Samb mi nga xam ne ñoo ko jiiteeg sëñ Xaadim Njaay tasawuf mi nga xam ne moom moo waroon a wax ñu seetal li ko tàmbalee fii ba kër sëriñ Touba gi nga xam ne sëñ Touba bu ñëwee fa lay dal ñoo ngi ciy séentu mboole mbokki jullit mbokki taalibe bi ndax liggéey bi day enchaîner continuer waat suba jàmm waa QCG doon nañ leen séentu xëy na yàlla mën na def tardement yu mel noonu moo ci am waaye kilifa waxoon nañ ci liñ ci war a wax yëpp ba xam ne kenn ku ci nekk war nañ cee teew ndax ñoom itam ñu ngi leen doon séentu di bi démb ñu war a fanaan si jàpp si ci liggéey bi di woote nit ñu lu waaye togg indi pour taalibe yi ndox lu waaye am indi soxna yi na ñëpp ñëw na ñëpp teew muy ëtti maam Cheikh Ibrahima Fall bu euh, na ñëpp teew ba xeebuñ kenn lu waay indi si bale lu waay mën a barkeeloo si tame lu waay mën a barkeeloo si togg ñu ngi la koy ñu ngi la koy sax ndox moo mun a joxe it ñu ngi la koy sax ngir jëmmi sëñ Touba. ñoo ngi lancé message nag gouvernement bi ak ministère bi ak ñi nga xam ne ñooy waa UCC buñ gisee lii ñuy def ñoom ñoom dañ koy def ñu leen di fay ñun nag dañoo volontaire ngir def ko. ndax ku ne xam ne ne maam Cheikh Ibrahima Fall bi ko sëriñ bi yeewee 1891 année 1892 93 yooyu bi mu demee ndar am na set setal boo xam ne ba mu demee fekk dëkk ba tàq da ko faa def set setal boobu nag la ñu royaat ci jàmbaar jooju di Babil Mouridine moo waral ñoom dañ koy def ñu leen fay donte lii ñuy def fayuk sëriñ bi lañ ci wut ndax wa kullu man xadamani aw saara wante fanaa ji wax firlahu aw saara waaqadil hawaayi jëla si na daamu wante fii xidmatin wa hablahum maraamu loola rek lan cay sàkku ci sëriñ bi wante dafa am àq yoo xam ne dox na ci suñu diggante ñoom moo xam mairie asalem moo xam mairie kolobaan ndax lii dafa waroon a fay ay ndaw yu volonté wu def ko muri nag buñ jugee volonté wu ngir def ko ku dikk da nga leen ca fekk ku demit da nga leen ca bàyyi boo ñëwee jàppale leen jàppale leen sa bopp nga jàppale ndax réew mi ay citoyen lan te ñun ñëpp a ko bokk loolu nañ ci bàyyi xel kon ministère bi na ci japp bu baaxa baax di santat bu baax itam Serigne Khadim Ndiaye Tassouf ci initiative bu am solo bi nga xam ne la jël ndax mom ci jëmmi bopam nee na ma lii man ma ngi ko gissé Turquie la gissé ci bisu oseenu ba nga xam ne dañuy dañuy def bis bi bu dellusee manam at mu yàlla sàkk dañuy ñëw manam banderole man mbedd yépp bam rafet lool ku fa ñëw rek ne bis bu am solo la kon nak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasoul ak li mu def ci biir réew mi ak monde beeg fep kon grâce à Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasoul